dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di Les Échos mu ñu xamal naa ñu jamono ji nag bu ñu waxantee dëgg mooy Sénégal ñàkku kaaraange gi nee na fii cobbay le grand de décentralisé maanaam mbirum wayu geek mbirum Samba Surabali gi jamono ji dafa daj réew mi kàpp ndax agression yi ma ngi mel ni tulleeg male sa suñu xëy dégg ko ci réew mi yéenekaay gi di Les Échos ñu xëy ubbi ko mu ñu xamal naa ñu nag diiwaanu Touba ba Ndindi ba Mbàkke station EDK ba sa Saint-Louis diiwaanu Kaolack chinois yi nga xam ne attaqué woon nañ leen fii jël seen alal ak américain bi nga xam ne daanañu ko fay rey bërki démboo njaay ak wëyu ak sàmba sura bali yi nga xam ne bërki démboo njaay ñoo doon joxarbante ay balu fetal ak waa gendarmerie yéen kaay gi mu ñu xam naan ñu en tout cas li am ba des mooy jamono ci ñàkku kaaraange gi ci réewum Sénégal daal di nay doy waar loola yéen kaay gi de las bàyyi mbir moomee daal di wax ci lu jëm ci wàllum njàng mi ak mi nga xam ne jamono ji bu ñu waxantee dëgg dafa daal di tagga témbee demul cénga dikkul mbay lara jàngalekat yi di gerew suba ngoon guddeeg bëccëg Mamadou Talla mi nga xam xam ne moom lañ dénk wàllu woowu moom nag daat nay wax ne gouvernement bi pare nañ ngir na daal di dialoguer ngir waxtaan ngir nag mën a andi ay solution daal di wax ne jàngalekat yi nag amuñu benn intérêt di dem si ay grève wala nag ñuy amal ay année balance jamono ji nag bu ñu waxantee dëgg Mamadou Talla mooy wax ne nag lijjanti problème yëpp ci jamp-jamp bi loole nag mënut a nekk il faut jàngalekat yi xam lu ni mela yéen kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu jamono ji kay njiitu réew mi di président Macky Sall ci boppam moo nekk ci guddi gu bët séddagu la maanaam moo nekk ci ay jafeñ ndax nag ginnaaw collectif ñoo lànk ñoo bañ ñi nga xamante ni bis bu yàlla sàkk ñoo ngi ci mbedd mi di ñaxtu ngir nag ñu daal di wàññi li nga xam ne mooy njëgu courant gi ak jàngalekat yi di waa G7 gi nga xam ne ñoom jamono ji ñoo ngi yënga-yëngal ak APR gi nga xam ne partem bi nag am ay jafeñ-jafeñ daal di mel ni sabar gu tas xuloo ak xiiroo ga ak ngaayoo ga mel ni tulleeg male ñu teg si Macky 2012 yéen kaay gi mu ñu xamal nañu lu jëm ci mbirum gere Ousmane Sonko daat nay wax ne bu kenn tuumal kenn lépp Macky Sall la maanaam kaw ba suufa bopp ak baat lépp Ousmane Sonko ne la ko waral ci biir journal bi moom nag mbirum détournement mbirum njubla ak mbirum escroquerie loolee ci la Macky Sall di dox te nag ñi nga xamante ni maanaam joxar bi nañ leen baaraam mu tuuma na ñii dañoo def ay giraawaale kii njaaxuma ñooñee nag dafay mel ni Macky Sall leen di doole la kaddu Ousmane Sonko la du sunuy kaddu ba tey ci biir yéen a kaay gi de Les Échos moom njiitul Pastef mu daal di xamle Macky Sall ni mu yoree réew mi nag moom ak njabootam rek ak i ñu ci campagne arachidière bi maanaam jënd ak njaayum gerte gi nga xamante ni maanaam catastrophe la sukkandikoo ci Cheikh Mouhamadou Bamba faal moom mi nga xamante ni mooy président exécutif bu COPEEL Sénégal la mu xam ne nag nee na Sonacos ci boppam jamono ji bu ñu waxante dëgg la nag jot ci gerte maanaam la mu collecté toll na ci onze tonnes kese bu ñu sukkandikoo ba tey ci moom njiitul COPEEL Sénégal daat nay wax ne lu toll si téeméer ak juróom fukki junni ci ay tonnes yoo xamante ni gerte gu ñu xolli dem na nag ca diwaanu Chine jamono ji ak yaafus gu mat sëkk ci nag gouvernement bu Sénégal wane yéen a kaay gi sunu làmm ñu fekk fa Jules Balde ma moom nag la mu xamle ci combat combat bi nga xam ne moo dox diggante Ama ak Modou Lo nee na nag bu ñu ko bëriwul ci saison bii maanaam bu ñu ko waree bëriwaat contrat bi nag dañu koy daal di négocier yéen a kaay gi de stade mu ñu xamal naan ñu Sadio Mané ginnaaw nag gaañu gaañu bi nga xam ne am na ko ci seen match bi ñu génn moom nag dina toog lu toll si ñaari ay bés yoo xam ne du dugg ci terrain bi maanaam ñetti match yoo xam ne Sadio Mané du ko daal di fubal